jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu nga xam ne moo di jàmm ji info point net. waaw monsieur Sow est-ce que mën nañ xam tey euh, ban taxawaay ngeen am euh, ci riposte Covid 19 bi au niveau de Cambérène. merci beaucoup monsieur Diouf bon yaakaar naa posé nga ma question bu am importance tey damay wax ni hasard amul. parce que fii nga fekk ñuy tourner émission bii nii ñu ngi ci siège yu comité local bu Covid du Cambérène bi et comme ni ma koy waxee sànq ci sama biir kàddu tey mbas mi yaakaar naa dafa ñëw chambouler le monde entier chambouler tey ay euh, mbir yoo xamante ne lu ci mel ni tey njàng mi comme li ñu doon wax léegi nii chambouler leneen domaine yu bëri Cambérène nag yàlla def na depuis le 13 avril. benn arrêté communal boo xamante ne waa le maire Mame Amadou Samba que je profite de l'occasion di nuyu ko moom moo ko euh, créé le comité euh, local de lutte contre le Covid 19 contre la Covid 19 du moins autant plus moi comité boobu noonu c'est le maire Mame Amadou Samba mooy assurer la présidence c'est-à-dire mooy le président du comité comité boobu aussi tamit bi ñu ko bi ñu koy taxawal monsieur le maire ci boppam xool toutes les forces vives bu Cambérène damay am benn slogan bu may wax chaque jour ñun Cambérène lu ñu juddoo Cambérène lañ xam fi leen màggee fi leen yare Cambérène desee lu ñu tu dara ñun en tant que citoyen ñoo ko deseel moo tax bu ñu gisee loo xamante ni day am ci dëkk bi loo xam day jëmale dëkk bi kanam man kat Moussa en tant que Cambérénois du ma xaar ku ma ci woo bi ñu yëgee loolu tamit lañ ñu approché comité bi comité bi yaakaar naa monsieur le maire wax naa ko mooy président bi am na cinq voire 6 ba 7 pôles yoo xamante ni moo fi euh, moo ko composé yàlla pôle médical bi nga xamante ni le docteur Cheikh Tadou Diop moo koy présider am na le pôle finance bi nga xamante ni suñu benn tonton bi ñuy wax euh, docteur Sibori Diop moo koy présider am na le pôle euh, suivi évaluation docteur Malick Diop am na le pôle des sages bi nga xamante ni moo composé tout ce qui est imam et bon sage du village am na le pôle social bi nga xamante ne bon euh, madame bi madame bi gère action sociale centre bi moom moo koy gérer en même temps tamit am na le pôle communication sensibilisation pôle sensibilisation communication boobu nag un certain Sidi Karje Fall nekk expert jeunesse moo koy gérer. Mm-hmm. te tey pratiquement activités yi nga xamante ni comité bi mi ngi koy déroulé pratiquement day reju day euh, génne ci pôle boobu nga xamante ni day diri euh, day déroulé les activités depuis wax naa ko nag depuis le 13 avril. lan monté ce comité là et comité boobu mi ngi déroulé ici à Cambérène des activités des sensibilisation parce que fii fi ñu toll nii actuellement bokkul ak bu njëkk bi feebar bi door a feeñ bi feebar bi door a feeñ dañ doon alerter ni kat ah moytu leen lii ak lii mhm. mais actuellement c'est comment a protéger am na sax benn concept d'ailleurs bu ñu lancé muy ànd fegu ànd fegu boobu c'est juste xool ku ci ne approche communautaire le comité bi di def maintenant. d'autant plus que dégg effectivement comme ni ñu ko xamee à Cambérène il y a des cas peut-être loolu le le pôle médical via son son président docteur Cheikh Salif Diop moo gën a habilité wu pour tontu ci mais on a noté ici des ay cas Cambérène comme ni ñu ko waxee tey premier cas bu Cambérène su ma juul mi ngi remonté vers le mois de mai ci fin bi noonu ci communiqué 82 bu ministère de la santé boobu ak tamit ñu ngi noté ay cas ay cas communautaire le comité am na rôle bu mu war a joué pourquoi parce que tey ñu ngi nekk ci dëkk boo xamante ni rëy na rëyul pour dérouler fay activité metti na mettiwul mais le comité xool loolu yëpp tey damay wax ni Cambérène yëpp dans sa globalité moo bokk ci comité bi mais dafa am benn collège boo xamante ne ñoom leen di ñoo leen di liggéeyal te lépp lu ñuy def on le fait avec nos autorités que ça soit l'autorité administrative l'autorité coutumière wala l'autorité religieuse yaakaar naa tey bi ñuy taxawal comité boobu noonu monsieur le maire bi nga xamante ne mooy le président def na parcours euh, comment dirais-je euh, tous ces toutes ces autorités là am na sax autorité xam ñu ngi ci biir euh, kii bi ci biir comité bi ci pôle sage bi donc pour dire que le comité mi ngi dérouler des actions ici au niveau de Cambérène pour sensibiliser davantage la population pour ñu ànd fegu à travers ce concept léegi nii muy ànd di wàcc ci quartier yi def une approche communautaire parce que fi tollu feebar bi instant mi ngi commencé gagner du terrain à Cambérène donc léegi ñun suñu mission day wàcc directement sur la population maanaam communication bi nekk directement entre le comité avec les parents comité bi ak famille comité bi ak population bi nga xamante ne jaratul woon ñu def ay émission ci télé nan leen kat moytu leen léegi la comité ci boppam via le président muy maire mooy sol ay dàllam wàcc sur le terrain def port à porte ba dimanche euh, bërki démb samedi rek ñu ngi jógee sama quartier déggoo def euh, bon benn activité boo xamante ne ñu ngi koy wax dynamique de quartier on a eu à faire des quartiers lu ci mel ni quartier Médine dem nan Cambérène 2 Dalal Jàmm dem nan déggoo les jours à venir aussi di leen wàcc ci yeneen quartier en même temps aussi tamit comme que activité yooyu dañ koy def les week mm. te gis nañ week-end chaque week-end peut-être da yeex pour euh, sensibilisation mën a dafa am des entités yoo xam ñoo bokk ci comité bi ak via le pôle euh, communication sensibilisation muy les relais communautaires les bajenu gox la Croix-Rouge locale ñoom ils sont sur le terrain pratiquement trois fois la semaine à savoir les lundis les mercredis les vendredis bu ko defee nag le dimanche bu jotee le grand groupe muy comité bi pôle yi ko composé ak les volontaires ak Croix-Rouge ma yëpp ñoom it ñëwaat ñëwaat ci benn quartier def euh, ce qu'on appelle une sensibilisation via l'approche communautaire Euh, gis nañu euh, ne instant bi euh, feebar bi Covid 19 mu ngi ci courbe ascendante ñu ngi ci 108 morts cas positif yi mu ngi yokk cas grave yi mu ngi yokku mais dañoo gis beneen kii boo xam ne paradoxe la muy relâchement ci mesure barrière ab bàyyeeku bu garaaw a garaaw ci côté mesure barrière yi par rapport population yi tey loolu ban kii ngeen ban ban ban gis nga si ak it ban ban ban taxawaay ñi lañ war a amaat ci côté sensibilisation. waa damay wax ni rek tey pratiquement bi président waxee. jël quelques mesures d'assouplissement tey ci la lépp xewee on a noté comme ni nga ko waxee léegi des cas de tey am na fi fi feebar bi toll woon ñu ñëpp dañ ragal woon ku ci ne slogan restez chez def ko benn paradoxe boo xamante kenn du génn sa kër lu booy génn jël masque mais gis na ni bi mesure d'assouplissement yi ñëwee relâchement boobu dañ ko sentir te ci ngay xam ni sax ci le cas de décès yi gën a bëri tey pas plus tard qu'aujourd'hui maa ngi l wax seul mois de juin compte 60 déportés alors que le Sénégal est à 108 morts 108 108 décès ci mois de juin bi rek le Sénégal a enregistré pratiquement 100 décès pour dire que fi moment bi président bi jëlee mesure assouplissement yi ubbi jàkka yi ubbi transfert urbain yi xaw a yokk couvre-feu bi bon ci la noté relâchement yooyu mais. Pré président nga accusé. <laughs> non j'accuse même pas le président mais c'est juste que dire euh, euh, comment dire la décision elle est croisée certes mais mënoon na gën a tënk pourquoi parce que fi ñu toll nii. état moo garanti notre sécurité état moo garantir lu bëri ci ñun donc day am fu mu toll foo xamante ne état moo war jël responsabilité tey bu dee population bu ci nee dafa wax ku wax ku wax rek nga ni noo xama ci yooyu day xaw a doy waar un peu mënoon a gëmm gën a dëgëral mbir benn deux mois benn trois mois boo xam après ñu génn ci moo gën mu assouplir nii après ñu nar ci nekk éternellement te ñaanuñu ko yàlla donc pour dire que ni instant bi la balle et revient du camp chaque personne ku jël sa mesure nga fegu protéger sa famille protéger say doom protéger ki nga xam mën nañu ko protéger. ñu ngi annoncé ne war na def kii tey peut mën na am dañu war a dañu dañu war a dëggal dëgëralaat <laughs> kii bi euh, comment euh, am nañ ci part de responsabilité bu mag sax surtout jeunesse bi jeunesse bi nga xam ne dañoo yaakaaroon ne ñoo waroon porter combat bi mais dañoo gis yu doy waar côté jeunesse bi. ñu dem sax bay jàmmaarloog policiers yi yow ban loolu tam est-ce que mën nañu comprendre. waaw foofu moom appel bi ma fay lancé sama mbokk jeunes yi rek maa damay wax ne tey jeunesse dafa constituer un pilier boo xamante bu essentiel ci développement pays parce que am na benn bon euh, kii buy wax nii dis-moi quel jeune tu as xam je sais pas quel avenir tu seras mm-hmm. donc c'est juste pour dire que ni la jeunesse day occuper benn place bu importante sur la vie. d'un pays wala sur la vie d'un d'une nation donc jeune bu ci nekk déjà war nga xam li nga xamante ne mooy sa rôle li nga war a jouer la lan mooy doon wala doon sa mission ba tey man je dis que ni man boog ah Moussa Sow jom naa def lenn li ba euh, monsieur Diouf wala kenn keneen ñëw ni ma kat sa waay du nii donte nag on est des jeunes am na loo xamante ni on a le sang des fois fougue de jeunesse daf ñuy daf ñuy emporter mais ñu dem ak suñuy suñu suñu suñu xel xel bi mooy lan ñu bañ def loo xamante ne daf ñuy da dañu siy jàmm donc damay lancer un appel solennel à mes amis wala à mes yi nga xamante ni pratiquement ñun ñoo nekk ci dëkk bi su ma ne ci dëkk bi nag Cambérène Dakar Sénégal laay wax monde bi ku ci ne balaa nga def dara rek nga peser le pour ak le contre lan li may def nii lan moom ci war a fekk enjeu bi lan la su ñuy wax enjeu lan mooy enjeu li nga li nga mën a gagner li nga mën a perdre ci mbir donc balaa maa dugg ci benn action wala balaa maa wax sax amaana naa seet wax ji je vais tourner ma langue cette fois wax ji may wax est-ce que du dégénérer action bi mën naa def xam est-ce que lan moom ci fekk tey bu ci ne ku ci ne ba yaa ngi raisonné noonu rek je pense bien que ni duñ duñ kenn duñu jam ñàkk jam bi nag mooy li may wax rek tey ñun ñëpp suñu parent damay wax ni li ñu war def nañ ko ci ñun maanaam jur nañu fi ñu war a juree éduqué nañ ñu yóbbu nañ ñu dans des écoles dem nañ jàngi léegi ñun ñoo am redevabilité pour ñun ak suñu askan wala ñun ak envers nos parents moo tax jeune lépp lu mu war def rek dafa def loo xamante ni lu mature lay doon loo xamante ni c'est réfléchi loo xamante ni c'est bien averti mais tëb tëb def noonu rek te erreur nag du ñàkk du ñàkk mais ci sa erreur boobu da nga ciy jàng man loolu laa gëm tey amul kuy taxaw ci àdduna kat ni man du ma def erreur mais boo defee erreur nga tiire ci des enseignements nga tiré ci des leçons yoo xam li ma def est-ce que est-ce que est permettra bu ëllëgee incha allah lépp looy defaat rek di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax donc c'est l'appel que j'ai lancé à mes compatriotes jeunes pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. waaw nemmeeku nañ benn retard retard bu bu bu sax ci mooy lii di distribution aide alimentaire bi est-ce que tey euh, ci Cambérène bi am nañ ko d'abord yow nan nga gisee aide alimentaire boobu ak ci niveau de Cambérène est-ce que boobu trop euh, am na fi. waaw foofu bu baax pourquoi parce de ce dispositif-là parce que j'ai été vérificateur xam nga l'État du Sénégal dafa jël des jeunes dans chaque localité pour ñu nekk ñu am une mission de vérification si la distribution elle est bien faite wala si même euh, ciblage bi il a été bien fait man yàlla def nag bon ma nekk nekkoon un vérificateur nekkoon ci dispositif bi du début à la fin en même temps ci sama entité yi nga xamante ne maa ngi ci muy le CCJ da leen impliqué woon ci dispositif bi donc pour dire que ni au niveau de mon quartier maa ngi woon ci comité de village bi fii au maa ngi woon ci séddale bi te damay wax ni Cambérène du yeneen dëkk yi effectivement et le si je me trompe pas le ministre mentre Faye concerne jël na def déclaration ne que jël neen l' exemple de Cambérène pourquoi parce que Cambérène fii bañ fi séddale amul benn coow te on l'a fait en un temps record pourquoi parce que y quinze 15 quartiers à Cambérène bi ñu toogee avec les autorités administrative que ça soit le maire ak euh, le préfet Mar dañu toog ni kat léegi Cambérène comme que y a 15 quartiers chaque jour nañu woo benn quartier mais ñun en tant que ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci dispositif boobu dem nañ bay joxe deux quartiers par jour pour dire ko on nous avait prévu pour une période de 20 jours mais def nañ ko en dix jours ba préfet ñëw sant ñu gërëm ñu effectivement mais day wane ne particularité bi nga xamante ne Cambérène am na ko ci côté en terme d' organisation tey mësuñu organiser loo xamante ne day échoué pourquoi parce que tey ñëpp xam nañ dëkk bi dëkku yonente la Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaam moo fi tëdd te am na loo leg yoo xamante ne bàyyil na ko dëkk bi pour dire que ni lag euh, alimentaire bi distribué na ko dans les meilleures façons ba ñëpp jot nañ amul koo xamante ne kay wax nga ci loo euh, bindu woon nga fekk amoo lenn kay moo moo moo si def mooy que ni ki nga xamante ni bëggoon na am fekk jotul bindu Euh, quota bi ñu alloué Cambérène <laughs> franchement ndaw na de trop de trop ba nga xamante ni ñu bëri ñoo xamante ne waroon nañ am amuñu pression démographique bi nag pratiquement ci la état def pour euh, pour pour pour pour joxe ndimbali pourquoi parce que à Cambérène on parle de 52 000 voire 53 000 habitants tey mu alloué benn quota wu 4 500 et quelques kits au niveau de Cambérène donc gis na ni pratiquement la demande est supérieur à l'offre bi nga xamante ne état jox na Cambérène mais pour dire que ni Cambérène moom a été un exemple ci dispositif ou distribution de cette aide alimentaire là bi nga xamante ne ministre même Mansour Faye wax na ko. jàmm